salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah ñun de dañ fi amoon naqar rek muy mercredi bi paase nii suñu benn papa boo xam ne nii wax dëgg yàlla bi ñu dëkkeek moom ñun ñii def na léegi fukki at ak ñett mun naa ne sax ñun fii lañ ko fekk moo ñu dalal waaye wax dëgg yàlla dëkk bu rafet la dëkk ak ñun moom ak ay soxnaam ak ay njabootam yëpp nag ñoo jëlloo benn kër bu ñu yuuxoo ma dégg su ma su ma yuuxoo ñoom ñu dégg li mu métti sama kër xam nañ ko leen métti seen kër xam naa ko maanaam dundu gor lañ doon dund ak jullit loolu lañ dundee wax dëgg yàlla mu nekk moom itamit paa boo xam ne mun naa ne papa la sax su ñun ndax ñun ay xale lañu waaye daf ñu ñu ñëpp xoolee benn bët boo xam ne bët bu ñaaw la mu nekk suñu papa wax dëgg yàlla mosuñu am dara lu ñu naqare ci moom koñ bi nag ba koñ bi daj ñëpp jàmm ak salaam rek sonalul kenn daal gor la sonalul kenn gisee bu xëyee gontoo gontu na su xëyee fajar lañ koy gis mu wàcc ànd mburoom andil ay njabootam su gontaatee gont na wala mu dem toog grand place am waxtaana ba heure gontam jot mu dem loolu la ñu xam ci moom ak dem jàkk ja julli jaamu yàlla loolu rek lañ xam ci moom ak ay waa këram ak soxnaam bii toog nga xam ne tey mun naa ne mag la ci man wala mu nekk yaay ci man njaboote bi samay rakk la ñuy ñii samay doom lañu ndax moo samay doom ay benn lañ ñoom ñëpp ànd julli daal la ñu dëkkee dëkk julli daal la dëkkee ak moom dëgg yàlla waxu courant rek ñuy defar fekk Senelec ñëw fii ñuy waxtaan boobu la ñu mujj nag moom mi soxnaam ak man ak moom fii ci bitig bi fekk Senelec defar sama courant bi mu wàcc ma bëgg ñu yëkkati ko parce que dëkkandoo àq la kenn du def loo xam ne ni luy koy lor la ñu wax noonu ba mu ñaan euh, chef bi ne ko dindil sa fil bi nga dindil ñu nga xëccal ñu ko fil bi mu di ci werante mu ne ma mami bàyyi ko bu bañee rek amul problème kàddu yooyu lañ mujj waxante daal fii ci bitig bi man moom ak jeena bi gisa mii di soxnaam ak Assane bitig fii jour boobu daal ba mu demee ba ñu xëyee daal nouvelle bi lañ ñuy tàggee suba teel man xëy naa di yeewu di bale fi may jaayee gis ñaari nit wàcc ci kalandoo ñu nekk ay jigéenam bi ñu wàccee dugg tuuti ma commencé bale rek dégg ñii di yuuxu ma teg bale bi dugg ma ñëw man sax sama xel li ñu wax feebar ak dee sori na sama xel sax dem na ci yaayu ndaw si muy sunu sunu maire bi toog ndax comme fan yaram bi daa xawoon a tawat ak yooyu mais bi ma duggee ba ndaw si dama daaw da gisee ma ne ko daaw da gisee mu naa ah, ma ne ko lu ko dal dara jotu ko de démb xëy na mu ma bandi yee ko fekk fi mu liggéeyee daal di koy agressé ba noonu la mujj faatoo ma ne ah loolu de mu ëpp na ñun ñëpp di yuuxu koñ bi yëpp génn nag ñëw affaire bi nekk lu ñu xam ne nii affaire bu ñu bu doy waar la bu yéeme boo xam ne nii dañ ko daan dégg mais léegi dañ ciy teg suñu bët te loolu mu ngi bëgg a ëpp ndax wax dëgg yàlla mag boo xam ne war na am juróom fukki at nga xam ne jaamu yàlla toll na fi nga xamante nii fu mu ne yàlla li ñuy wax euh, dëgg la sax waroon na am doom ju ko aw waaye xëy na yàlla noonu la dogale noonu la dogalee ay mbiram ndax moom it ay njabootam rek la am daw wuti ñëw indi leen rek la am kon loolu waru def naa ne waruñu koo fekk fa muy liggéeye tamit di ko faat faat bu benn nii boo xam ne faat bi dafa daf ñoo métti ñun parce que dafa ñaaw dafa ñaaw ndax daf ñoo métti trop trop trop ñu ñu delloo moom dëkk ak moom ak dëkk ak moom ñaaw na trop métti nañ ko ah, ñi lancé appel nag di wax président Macky Sall ak ñi nga xamne ñom la fi bay ñi nekk fi ci jidde caaroy kaw nga xamne ñom ñoom ñoo yor euh, ñoo ñoy sam kaaraange nit ñi ñi jël ci matukay parce que man dama daan dégg ñi naan caaroñ dafa bëri baan dafa bëri baan di mais it mu ngi bëgg ëpp té itam li gis ñu lu ko fi jar alalu aduna bi jaruko mag mo xamanteni ni boko rombon tay defal ko rek mo la war wala nga ñaan mu sukku tal nga tal say loxo mu ñaanal la nga fekk fu muy liggéeyee faat ko lor ay njabootam moo ci fi ay njaboot yu sew nag yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw mu nekk lu métti te wéeruwuñu fenn maa ngi ñoom a yem wéeruwuñu fenn surtout ñoom li may wax du ay caaxaan ndax fii ñu nekk nii tey tey tey tey tey jour bi nga xamante ne la paa bi faatu jour boobu la tey paa bi waroon a tuxu ñu ñëw lii am kon nga xam ne ne paa bi wéeru fenn Macky Sall nag laay lancer message lu mu leen mën a dimbalee te yàlla rek a tax. def ko te yàlla rek a tax ndax jullit ak jullit yaa ngi dégg waxuñu ko pour ñàkk dañoo ñàkk lu ñu lekk wala dañoo ñàkk ñoo ngi lekk ñoom ñoo ngi naan am nañ lépp mais nag dëkkuwaay dafa am solo te it mag la woon lu luñ ko ci mën a dimbale ñu dimbale ko te yàlla tax sama xol nag laa ko tibbee parce que waxoon naa ko fi keroog dama koy waxaat ñu dimbale leen te yàlla rek a tax ay njabootam ñu am fu ñu nekk ndax ku ne xam ne lu yaas métti na te paa bii dem tey jii moo ko doon kërti kërti ñëw di ko indil ay njabootam kon bu ñu ko defee nii wacc ay njabootam tey jii te kenn tegu ci loxo day métti man moom loolu rek laay ñaan yàlla nañ leen dimbale muy ma première ma Marème fay sàll ndax gis nañ dimbal bi muy def ñaanuñu nag ñu ndax naqar la boo xam ne dafa tiis mais nag occasion la ñu am di ko profité di ko lancé waale ndax ñu dégg ñu. loolu nag moom amaguñ ci nouvelle bu ñu gën a leer mais ci ay wax rek waxi nit ñi sànni te xam nga léegi looy wax Sénégal day leer mooy loolu yaa ngi dégg ndax affaire rey dafa xaw a nekk loo xam ne dafa yéeme waaw man nag démb taabal laa yor di jaay sama place nit ñi dañuy wax may dégg sama nopp mais du ma leen tontu maa ngi dégg ñeneen jàpp nañ leen te dama xam ne bu fekkee jàpp nañ leen wala ñu gis leen war nañ ko wax ay ay njabootam parce que ay njabootam ñoo ngi fii ñun ay dëkkandoom ñoo ngi fii war nañ ko war nañoo ñëw annoncé nañ ko na jàpp nañ ci ñii wala jàpp nañ ci ñi tey jii ma lay wax nii may ndugg léegi léegi bay ñëw tamit nit woo na ma waxaat ma ne ma carrément jàpp nañ ci ñett ñoo ngi dëkk côté bii ñuy wax machine Maodo mais loolu tamit mënuñ cee euh, basé wu que ñi nga xam ne ñoom ñoo yor enquête bi muy waa police euh, Pikine fii Thiaroye ñoom ñoo war a ñëw déclaré ko ay famem mais ba léegi dégguguñ ci dara loo xamante ni lu leer la suñuy nopp waa loolu rek lañ ci am waaw sa ñoon nag nu mu gën a gaawee ñi jàpp leen ndax ñi xam leen parce que ñiy def nii bu ñu leen bàyyee ci dëkk bi dinañ defaat leen lu ko gën a raw waaw waaw maire bi fi nekk Cheikh Dieng la moo fi nekk maire jidd Thiaroye Kaw ki si topp muy responsable yi fi nekk ñoom Malal ak ay ñoom ñi ma Malal laa ci gën a xam xanaa ay ñeneen ay ñi ci gën a kawe daal ñoom it seen wareef defuñu ko dafa des parce que ñoom mënuñoo nekk ci dëkk bi yaa ngi dégg dëkk dëkk bu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw ku ne xam na li fi nekk. yaa ngi dégg ñi war a sàmm bakkanu nit ñi ndax man dama ne keroog bi yëf yi di am ay gardien ñoo ngi si ay paa bi pharmacie bi nga xam ne moom la ñuy dend am na gardien bi fa ne station bi am na ay gardien fa ne te gardien yi fa nekk gardien yooyu gardien xanaa yëf yi mënoo mënul am ba ba jeex te ñoom amuñu dara lu ñu ci war a mën a yëg lu bon bon war nañu am lu ñu ci mën a yëg sax ba def euh, au secours nit ñi dem dimbale paa bi parce que loolu bi muy am ci waxu nit ñi li ma dégg nee nañ 5 heures du la kon kon kon yëf yi euh, nekkul ay guddi guddi yooyu Hmm, kon loolu ñoom waroon nañ ko mën a yëg mais ñoom war nañu def seen taxawaay surtout Cheikh Dieng moom mu am taxawaay boo xam ne moom la war a def man dama yaakaaroon ne fu nekk rek war nañ fa mën a def de police fii Tali war na mën am poste de police yaa ngi dégg ñu nit ñi mën a kaaraange gën a mën a gën a gën a mën a gën a mën a aar nit ñi mais loolu dafa xaw a manqué tey tamit bandi yi bëri nañ fii bandi yi bëri nañ fii waaw nañ ko wax nag te dee bandi yi bëri nañ fi caaro banlieue bi moom li leen di bàkkeel dafa nekk loo xamante nii dëgg la rey bi fépp la nag ci àdduna bépp la mais fii da cee xaw a dafa ci xaw a métti waaw ñi ñaan yàlla nag loolu moom nu autorité yi mun a def ba mu dañ fi ñu ngi leen koy ñaan daal ñu ñu ñu taxaw ci daal